jërë ngeen jëf salaamaaleykum mbokki internet yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel file ci Sunugal 24 am nañu mbégte bu baax dellusiwaat ak yéen ci li nga xam ni moom moo gën a fës ci xibaar yi ci bésub tey ji dañu koy doore ak kii di Bassirou Diomaye Diakhar fay bi nga xam ni war na amal prestation de serment mardi 2 avril bu ñu sukkandikoo ci li di son directeur de campagne di euh, Moustapha Mbaba Guirassy moom nag ma ngay xamle ni kii di Bassirou Diomaye Diakhar Faye daf ko xamle daf ko xamal ne moom boobu la prestation de serment bëggu ci amal lu jëm ci wàllum xumbaay ak mbumbaay danañu ci ñëw ci biir xibaar yi moom président Emmanuel Macron moom itam ma ngay wéy di gën a féddali en tout cas kollereem ak réewub Sénégal jaare ko ci euh, njiit njiit li nga xam ne moom la ñu tab bu yees euh, ci bopp gouvernement bi euh, mbébét gi nga xam ni am na ko ngir léggéey ak moom moom président Emmanuel Macron danañu ci ñëw après léegi-léegi ci biir biir xibaar yi Malal Talla alias Fou Malade moom nag gannaaw ba ñu ko nominé moom ma ngay xamle ni boobu la nomination moom ci boppam sax yëgu ko danañu ci ñëw. ci biir euh, xibaar yi lay euh, doon Abbas Fall euh, bi nag fàttali kile di Barthélemy Toye Dias bi doon wax ni mooy maire bu Ndakaaru dellusi na ca chiffre yi nga xam ni kon waa Pastef wala kon coalition Diomaye président am nañu ko ci biir Ndakaaru ci élection présidentielle yi mu nekk écart bu yaa boo xam ni am na ko ci boobele élection présidentielle mu jàpp ni kon nag léegi ki moom Ndakaaru feeñ ne waaye ma ngay xam ne ni léegi amatuñu droit def li nga xam ni moom moo di euh, erreur euh, loolee danañu ci ñëw président Macky Sall bi nommé Abdoulaye Ndiaye ca magistrature bi nga xam ni euh, foofu la ci cour suprême bu Ndakaaru loolee nag commencé na jur ay coow yoo xam ni euh, kii di Alioune yëkkati na ci ay kàddoom yeneen yi nga xam ni itam kii di Pape Alé Niang moom aussi tamit nekk ab taskatu xibaar yëkkati na ca kaddu jaf jàpp ni kii di président Macky Sall jamono ji kenn xamul lu mu bëgg mbokk yi lii ab tënk rek la ci li nga xam ni moom moo gën gën ci euh, xibaar yi euh, nees gis ñu faram fàcce ko loole bu jëngel bi daanoo lay doon avec euh, complicité wu ñi nga xam ñoo fari ci régie bi voilà bu dee yëmbul ñu soobu rek ci euh, faram-fàcce li nga xam ni moom moo di yile xibaar euh, doore ko ak euh, ki nga xam ni moom moo di Moustapha Mbaba Guirassy bi nekk directeur de campagne kile la nga xam ni moom moo di Bassirou Diomaye Diakhar fay moom nag génn na amal li nga xam ni moom moo di ay confidence ci ki la ñu tabbu njiit lu yees di wuyoo ci turu Bassirou Diomaye Faye ma ngay xam le ni nag moom président bi bëggul lu jëm ci wàllum folklore ni nga xam ni euh, mooy prestation de serment bi nga xam ni moom la ñu war a amal kile di Bassirou Diomaye Faye bëggu ci lu jëm ci wàllum folklore wala lépp loo xam ni kon dafay euh, indi ay xumbaay ak i mbumbaay te xaalis man te yàq goo xam ni mënoon na jëm euh, ci askanuk euh, Sénégal boobi les cérémonie de passation de service moom sax la mu bëggoon moom Bassirou Diomaye jaxaar Faye mooy ñu amal ko foofu la ca biir conseil constitutionnel waaye nag ña ko séq ñoo ko xamal ni ko dañu ci am ay invité yu mag yenn ci président de la république yi fare ci yenn réew yi dañu ci war a teew te conseil constitutionnel dana ndaw trop ngir daal di leen ci noonu nag la daal di dépp remplacé moom euh, ki nga xam moo di euh, Bassirou Diomaye Faye yóbbu ko ca centre de conférence Abdou Diouf ba fare euh, foofu la ca Diamniadio noonu ne la ko ki li nga xam ne moo di Moustapha Mbaba Guirassy waxee mu xam leen itam ki la bi jeex na léegi dañu war a jublu ci li nga ne moo di liggéey bi au travail maanaam ndax sénégalais yi dañu yónni yàkkamtu ñu dañu fal te bëgg ay résultats yoo xam ni dañu ko soxla yenn yi nga xam ni mënul mënul ci daar daar bu ñu ci jugee ñu addu euh, wax ci euh, wàllum diplomatie ak président bu réewub France bi léeg nga xam ne mook Sénégal c'est une longue histoire moom Emmanuel Macron ci àjjuma ji 29 euh, euh, mars moom nag yëkkati na kàddoom euh, ba tey waxaat ci yëkkati na téléphone am wax ak ki la nga xam ni moom moo jël président nouvellement élu fii ci réew Sénégal di Bassirou Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom président Emmanuel Macron nag ma ngay wéy di feddali bëgg-bëggam ak mébétam ci wéy di continuer liggéey ak réew Sénégal rawatina ci njiit lu yees li nga xam ni moom la ñu tabb di Bassirou Diomaye Faye moom président Emmanuel Macron kon itam euh, noonu la ko xamle gannaaw ci ab euh, première déclaration bi nga xam ni kii di Bassirou Diomaye Faye amal na ko dafa lance woon benn message ci la communauté internationale que ni ñoom euh, pare nañu ngir daal di wéyal li nga xam ne mooy ji partenaire partenariat bi mais nag cette fois si dafay nekk gagnant ak gagnant ndoone la ko Bassirou Diomaye Diakhar fay kon rek daal di yëkkatee woon mu xam le ni dàquñu benn réew étranger ñëpp képp koo xam ni tey réew Sénégal war taxaw ñoom pare nañu itam nguur gu yees gi ngir liggéey ak ñoom ci noonu nag moom président bu France bi kon yëkkati na téléphone am woo ko euh, daal di xamal xamal ko ni ñoom pare nañu te itam noppi nañu euh, ngir liggéey ak euh, gouvernement bu Sénégal mi ngi noonu bu ñu ca jógee ñu addu wax ci Abbas Fall bi nga xam ne kon yëkkati na kàddoom nekk député nekk itam coordonnateur Pastef fii ci Ndakaaru moom ma ngay xam le ni amuñu droit def erreur ndax fi nga xam ni kon askanu ko Sénégal ñoo ngi leen fay xaar moom Abbas Fall nag ñëw na euh, ci chiffre yi nga xam ni am nañu ko ci Ndakaaru lu toll ci deux cent quatre-vingt-huit mille voix file ci diwaanu euh, ci département bu Dakar alors que moom Barthélémy Toye jaas bi nekk maire bi mi ngi am lu toll ci vingt-quatre mille voix ci euh, coalition taxaw bi nga xam ni moo Khalifa Ababacar Sall ñoo ci am moom nag Abbas Fall jàpp ni lii leeral na nañ kan mooy borom Ndakaaru kon eh, ñi nga xam ni dañu doon eh, wax ñi doon wootee gatsa gatsa ana ñu fi ñu nekk léegi wala eh, ñoom ñooy borom ndakaaru mu Abass Fall jàpp na ni loolee daal di nay tontu fi mu leer nañ ba tax nag mu wëlbatiku jàpp ni fi mu ne nii nag nekkatuñu ci ay mois yoo xam ni dañuy dugg ci ay détails dañu war a liggéey parce que amuñu droit def li nga xam ni moom moo di erreur ñu dem ca conseil constitutionnel moom nag daal di nay joxe li nga xam ni moo di résultat définitif yi nga xam ni moo tukkee ci élection présidentielle di élire ki la nga xam ne moo di Bassirou Diomaye Diakhar comme président euh, de la République décision bi la nekk sages yi nga xam ne ñoom ñoo fa euh, daal di nekk ñoom ñoo ko joxe xam le ni amul benn contestation boo xam ni am na ci euh, euh, pal gi nga xam ni pal nañu ko kile di Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom nag mi ngi am ci lu toll ci cinquante quatre virgule vingt huit pour cent noonu la ko Sénégalais yi daal di fale ñu ñëw ci pal gi ba tey moom président Macky Sall bi nommé Abdoulaye Abdoulaye Ndiaye euh, mu yóbbu ko foofu lay te cour suprême bu euh, Dakar euh, en tout cas ñu jàpp ni boobee les décisions c'est une nomination anticonstitutionnelle doonee la ko gisee ndax ki di président Macky Sall 72 heures manees na wax sax 48 heures moo ko desee ci nguurug Sénégal ngir mu daal di dem ba tax mu jàpp ni boobee les décisions dafa rek daal di violer l'esprit de la constitution ci moment bi nga xam ni yooyu les décisions yu am solo lool. kii di président nouvellement élu di Bassirou Diomaye Diakhar Faye moo ko waroon jël à sa place mu jàpp ni kon kii di président Macky Sall li mu def dafa rek manqué une élégance républicaine boo xam ne kii ne dit pas euh, son nom bu ñu ca jugee moom Alioune Tine bu Africa Jom Center ba tam yëkkat na ci kàddoom ndax moom jàpp na ni euh, mënul comprendre kii di président Macky dogal gi mu jël ak li nekk nekk euh, xaritam cette décision à la veille de son départ du pouvoir euh, sur un poste aussi stratégique et une euh, transgression euh, caractérisée des règles les plus élémentaires des pouvoirs légitimes noonu la ko xamee moom Alioune Tine mu jàpp ni nag ki lee di président Macky Sall euh, lii lee mu euh, def euh, jàpp na ni waru ko woon def waroon na ko bàyyal ki nga xam ni moo di Bassirou jomaay Diakhar fay ngir mu ñëw mu jàpp ni ki di président Macky Sall dafa empiété ci yenn ci prérogative yoo xam ni ki lee di Bassirou Diomaye fay moom moo ko waroon a amee noonu la ko xamle moom mi nga xam ni moom moo di ah, Bassirou jomaay jaxaar ah, fay kile di Pape Alé Niang ah, junjoon junjoon nañu ko ci bopp xibaar yi nekk itam taskatu xibaar moom nag muy xamle ni eh, président Macky Sall eh, kenn xamul lan moo nekk ci bile décision mu eh, jël noonu la ko xamle ba tax sax mu xamle ni kile di président Macky Sall signé na li nga xam ni moo di décret bi te bëgg na amal passation de service entre ñaari président yi loolee nag nag moom Pape Alé Niang nga euh, jàpp ni euh, lu kenn mënul comprendre la ci président boo xam ni léegi euh, nga daal di génn ci li nga xam ni moom moo di boobile nguur bu ñu ca jugee ñu wax ci président Macky Sall bi nga xam ni wax na ak ñi lee di waa APR yi nga xam ni nag léegi ay opposant lañu ma nga naan leen na ngeen opposé wu ci dignité moom président Macky Sall mu ngi ko yëkkati kàddu yi ci conseil des ministre bi nga xam ni moom la mujjee amal la fois passée moom ma woo ay euh, naataangoom que nañu dem ci opposition bi ànd ak dal ak tey waaye itam nañu ko def avec euh, dignité wét gore wéttalu ko gore noonu la ko xamle moom euh, président Macky Sall tey itam nañu jël seen ay responsabilité daal di euh, liggéey li nga xam ni euh, moom moo di euh, réewub Sénégal ci tënk mu ngi noonu mbokki internaute yi nga xam ni ñi ngi ñu doon bàyyi xel file ci vingt 24 ak si nañ ci càppandaw ko tënku yi le xibaar jaajëfal leen jaajëfal itam kile di Serigne Saliou Dóor waar yi nga xam ne ñoo nekkoon ci technique bi doon ko assuré yéen itam jaajëfal leen bu baax baax jox leen dig daje léegi-léegi ak yeneen i programme laata loolu wéy leen di abonné ba si tam ci cloche de notification bi ndax programme yi dafay wéy di continuer jërë ngeen jëf